Social Shopping Production. Pour tous vos programmes, clips vidéo, tournage série, couverture médiatique, montage ou étalonnage, veuillez nous contacter sur la 77 417 77 40. Social Shopping Production. بالله من الشيطان الرجيم وإني أهيسا بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أهوز بك من مجار شياطين وأهوز بك ربي أيهندرون عونك يا مهين وبك نصحين بارك سيو الخديم بك جلدين بك تالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أه نيجي لين دي نوي بباخ دي لين زياري دي جيتال تي نوي بي تاميت خليفة جنرال دي موري سيرين محمد المنتخى مباكي ديكو نانال يالا مو ياغال كو في لول تويرال او يرامم وادي واخني غناو لولي تاميت نيوغي خاملي رك ني في تي كامبرين في تي ويتو ميري بي تي ايكول 1 يالا دوغال نغي ديفي تاخوال بيس بو خامني بيس بو ماغلا ني تام ديكو ديف تي ويرو سفر وي ويرو تيرو رك samedi bi ci ñëkk insha allah rabbi ñu fa seené Ah, ci biir loolu nag ñu fa yéene woon rek leeral lenn ci li nga xam ne mooy jaar-jaaru daara ji ba ñi nga xam ni xëy na ñi ngi gis mbooloo mi te xamuñu naka la mbooloo mi sosoo wala ñuy doog a bokk si ci biir bu ko defee mu gën leer ci bokki bokki bokk yëpp. Ah, bokk na ci la jiitu yi tamit li nga xam ne moo doon dégg dëgg yi la ji mooy fexe ba ni ko Sëñ waa ñaane woon boromam rek ak njabootam fépp fu ñu mën a nekk rek àndandoo nekk benn loolu biñu nekké fi ñu gis né daayira yi gannaaw ñun ñëpp ay daayira yi murit lañu sëriñ bi lañu ñuy liggéeyal ñu né lépp loo xam ne mën nañ ko def ba gën a booloo rek yaakaar na ni loola mooy li gën bi loolu amee mbokki taalibe yi fi newoon ñu doon def kuréel yi léeg-léeg benn daayira jóg lu mel ni xidmatul xadim ñu ngi daayira dimas wala beneen xidmatul xadim bi doon daayira àllarba ñu mën a jóg àndandoo tey ni tey kat nañ seet yi daayira bi nga xam mooy miftaaw sahaada wala miftaaw saxaada xëy ni day seeti kantul muxtadin wala kantu jóg tey ni nañ seeti waa na safinatu abraar noonu lañ ko doon defee mujj gi nañ ñu ne lii daal warees na cee gën a xoolaat meneen pexe mu muy gën a yaatoo nañ koy defee noo xam ni fas yéene di ko def weer wu jot rek ñu tànn dimanche ba ci njëkk wala ñaareelu dimanche ba mboolem daayira yooyu yëpp ñu àndandoo dem ci benn daayira daayira foofa ñu tuddee ko daay daayira jokkoo loolu moo doon turu daayira jokkoo bi bi loolu amee tamit ñu waxtaan ci ñu dem ci ren ba déwén a ah, mu am solo lool ñëpp rafetlu ko nag ñu ne nan ci bokk ci li ci njëkk war daal mooy gannaaw ku tedd ki mi ngi fi muy Serigne Saliou Mbacké nañu seet ñu dem ziyaare ji ko ci turu daara ji bu nu demee jébbal ko sunu addiyee leeral ko liggéey bi naka lay doxee ci biir lool yi tamit bi nu dajee jokkoo bi ñu waxoon ni gannaaw mbooloo mi benn la kenn ku ci nekk dem di ziyaare ji ñëw bu ëllëgee keneen ziyaare ji nan ko def muy benn ziar rek dajale addi yëpp yët ko sëriñ bi bi loolu amee lan ko defoon nag àndandoo dem ba fi nga xam ni mooy sëriñ Saalihu Mbàkke yàlla na ko sunu borom dolli ay leeram te tax nu ci barkeem bi nu ñëwee leeral ko liggéey bi ñu ko daayira jokkoo la ñoo dekk fe booloo nekk benn sunu addi yu ñëpp di tamit mi ngi nii di la yëgal liggéey bi ca di ci sàkku sa sa ndigal ak say ñaan mu daa di wax ni tudde nañu daayira Majmahun Nurayni fi fawaa'idi daarayni wax ñu ni mbooloo mi nañ ko tudde noonu daan ni na ngeen xam ni nag sama xol sedd na ci lool daan ni mbooloo moom de bokk naa ci yéen te it fu ma toll maa ngi seen biir loolu lañu sëriñ sëriñ bi wax keroog berndeel ñu yëkkati tamit ay ñaanam jox ñu nit ni békki lool àndandoo nag bi nu ñëwee nag ki la ñu xalaat nag ni kon nag ah, loolu nag war nañ ci gën a dollee góorgóorluwaat bu baax te maa ngi koy wax barki dem ne am nañ ci geneen tawféex ndax bi nu jógee ci moom ci loola dañoo dem ci sëriñ Jili Mbàkke moom sëriñ Saalihu leeral ko ko mu békki lool ñaanal ñu ci ñu jógee fa dem ci Serigne Abdoul Hakim jógee fi dem Cheikh Mamadou Mountakha mii nga xam ni moo fi xalif général fi mu ne yàlla na fi yàgg lool te wér ñoom ñëpp ku ci nekk jaaroon nañ ci yow gaaral liggéey bi nga wan ñu sa mbégte defal ñu say ñaan soññiwaat ñu ci liggéey bi tamit bi nu ñëwee nag ki la ñu doog a xalaat nag ni kon léegi naka la war a def ñu ni daara ji nañu am ñaari objectif yi rek nañ nañ ko jël teg ko suñu kanam bi ci njëkk mooy ab murit moom fu mu toll di liggéey Sëñ Tuubaa di wane ak cantam te loolu bokku na ci fessel giñ koy fessel bis yi koy def ñu ne ban bis la wara war def ñu ne gannaaw Sëñ tuba mom waxon na ni magalem gi sa bu ñëwatee kep ko xamni sama mbek sa mbek la nak ma ci sante la yalla ci jaamu yalla ak bernde ñu ne kon nañu jël bis bobu japp ci bis bo xamni at mu jot mbokki taalibe yépp dajalo ñu dajale suñu addiya togg ay bernde jang xasside yi woo kat yi nga xamni man nañoo leeral ci sëriñ bi ngir ñu waxtaanal ci soññiwaat ñu suñu diggante ak sëriñ bi ñu ne kon nañ ci jàpp safar bi di ko jàpp gaaw bi ci njëkk loolu mooy sababu loolu daara ji nag bi muy am nag sëriñ bi dina jox tur wi loolu mi ngi doon ci atum 2004 2004 ak léegi kon mën na ne bi sëriñ Saliou joxee tur ak léegi def na ci fukki at ak juróom kon yàlla na yàlla na gën a yàgg lool beneen bi ci des ñu ni euh, ziar bi moom ñun ñëpp ko bokk bu ñëwee noonu la ñu àndandoo dem leneen li ci def muy nañ fi ni sër kër sëñ xam ni bu ñu ko amee lay dégg dégg yi ji mooy ni ko amee ci bitim réew ak fenn fu mu mën a doon sunu njaboot yi nga xam ne ñoo fi nekk tey war a ñëw ëllëg te am lu ñu war ci ñoom bokk ci àq yi nga xam ni war na ci moo ñu jàngal leen te yar leen bu na amee kër googu bokk na ci lañ cey def mooy jëmmi lool rek moom moo ko tax a jóg képp koo xam ni tamit ci sëriñ bi la sox ko moo xam mu di taalibe sëriñ bi moo xam ci ak njabootam kom mën a doon boo ñëwee tamit doon fi gan kër gi doon kër goo xam ne sax wàccuwaay la doon ñu sante ko sëriñ bi kon yaakaar na ni loolu ci boobu ba nëgëni ci loolu lañ nekk di ci dox mu nekk lu yaatu lool nag ñenn ñu nekk ak yoon ci am na ñoo xam ne ñoo yore wàllum njàngum xaside yi yore kuréel gi bépp xew boo xam ne am nañ ko fi muy mbégte wala muy bànneex ñoom ñoo fay teew yëkkati xaside yi ñi nga xam ne ñoo yore wàllu culturel bi yàng jàng alxuraan bi nekk fa di soññee soññiwaat mbokki ku ci am bànneex ñun ñëpp ñu bokk ko waaye ku ci am safaan yi tamit mbokk taalibe yëpp bokk ko ak yow ba day mujj woyof toll ci yow kon daal loolu mooy li nga xam ni euh, foofu lañ ko jaarale woon liggéey bi di dox nag ba bi nu ko njëkkee def ñi ko defe woon fii ci euh, tali Njaga Mbay bi balaa ngay kër ñoom sëñ góorale ci mbedd boobu lañ ko doon defee kon ne xam na ne foofu ak fii wuute na lool xatoon na lool nañ ko doon defeet mooy dañ koy tàmbali rek bu gënee guddi tuuti ñu yamale ko fa waaye li ñuy wax ni mbir moo xam ne moom ngay def te yàlla nangul la ko yokkute gi muy am ndax sëriñ bi dafa waxoon ni sama tay ju day gàcceel sama démb waaye sama ëllëg ju ne day gàcceel sama tay bañ ko fa defee ay yoon xajatu fa ci lañ ko yóbbu ci fii nga xam ne fi la ñuy wax jàkkee Médine def ko fa ñaari yoon doo ko indi fii nga xam ne ci école bi nag fa séene def ko fi di ci di ci di ci liggéey mu doon mbir moo xam ne mbir mu kéemaane kéemaan ndax ndakaaru gi ku ne xam ne nii dëkk bu doy war la yàgg nañ fee bëgg a taxawal xaside yi di ko jàng waaye teewul woon mu daan am ay jafe-jafe ci fànn yëpp niñ ko xamee ci ci réew mi yëpp waa ndax boobu sëriñ bi mi ngi doog a jóg mbiram di di jëm ca kanam ñenn ñi nangu ko am ak woyef ak tawféex gi ñeneen yi tamit jàpp ni loolu bu gënee jóg xëy na dana am leneen lu mu leen yàqal ba suñu magi taalibe yi nga xam ne ñoo féetewoo fii tamit yor fi daayira Touba Cambérène ak Touba Parcelles jafe-jafe bu nekk yi tamit ñu jànkonte ko fii waaye teewut ba wax nañ ñu ni sax am na jàng yu ñu doon def yoo xam ni bi ñu demee ba jàng jub si dañoo mujj am gàllankoor ni mënatu leen fee defee jàng yi ñu lu leen naqari lool àndandoo li des si àddee yi ñët ko si ñëpp laat bi ñu demee leeral ko lool boobu mooy xalif général mu ni leen dem leen te ngeen toog te muñ bisa ngi ñëw fépp fu ngeen bëggoon liggéey bi yegg fi dana fa yegg te kenn du ci man dara waaye loolu te yàlla dimbali nañu ba gëmee nañ ci ni kon ñun liggéey boobu ci ñun la ko ci ñun la ko sëriñ bi jaarale kon daal loolu mooy mooy li nga xam ne mooy daa jaar jaaru daara ji mbokki taalibe yi nekk fi mu am fi social boo xam ni tamit kem noonu képp koo xam ne bokk nga ci daara ji am ci carte membre di dox ci daara ji lépp loo xam ne rek yegg si na ci yow lu mu mën a doon rek waa daara ji dinañ jóg àndandoo ko ak yow bu dee doole moo koy def danañ ko def bu dee suñu alal moo koy def danañ ko ci jëmale bu dee xalaat bu rafet yi tamit danañ fas yéene li ñu man lépp ñu fas yéene jëmal jëmale ko ci biir loolu kon daal yaakaar loolu mooy yi nga xam ni mooy yi daara ji nekk jaar-jaar yooyu ba tey fii fii mu toll nii bokk na ci laaj yi tamit mu wax nii euh, bi ñu koy def mooy maanaam lii naka la demee comme bu ñuy euh, def tey di ko méngale tey ak démb ci ñun yan jafe-jafe lañ ci doon am ak tey jii tamit lan lañ tee muy tawféex mooy li ñu doon wax rek xam nga menn mbooloo moom daa gën a wax ni Sëñ Fallou daan wax ni mbooloom jur nee na wenn yet moo leen di sàmm waaye mbooloom doomu aadamam nee na kenn ku nekk ak yatam ba koy sàmm loolu moo war tamit ab ànd bu dee bëgg a taxaw du neex seytaane du neex ñi nga xam ne xëy na bëgguñu lu baax ba tax na daan nañ am léeg-léeg ay jafe-jafe xëy na di réeroo ci ay kàddu te bu ñu seetloo ci liggéey bi fi ñu toll nii bokk na ci ñu gën a sant yàlla ndax lépp loo xam ne yëkkati nañ ko rek kenn sax bu ko yëkkatee ni nañ def nangam mbokk taali bi yëpp dañuy wëlbati ko àndandoo moom ci loolu kon loolu ak sant yàlla la goo xam ni bokk na ci li ñu gën a marqué ci liggéey bi maam na si jiitu woon ñoo xam ni ba liggéey bi di tàmbali mën na ne ñun ak ñoom ñoo ko àndoon am na ci ñoo xam ne ñi ngi fi am xam ne yàlla dogal na nekkuñu fi ñi ngi feneen léegi di fa di fa di seen doole am ñoo xam ne tamit xëy na yàlla dogal na dem jiitu ji waaye ñoom ñëpp ñi ngi leen di ñaanal fu ñu toll euh, ñaan sa borom mu defal leen tawféex alxuraan jin fiy jàng ak xaside yi tamit yàlla nangu lépp ba defal leen ci ñoom lu kawe kawe seen jortu liggéey bi ci noonu la doxee ba barki démb ziar bii nu mujj am am nañ tawféexu toog ci xalif général des mourides muy Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàlla yàgg lool te wér ñu leeral ko liggéey bi tamit leeral ko ni liggéey bi di doxee xamal ko ni ko ay ndaw lañu yu nekk diggante Cambérène ak Parcelles di fa liggéeyal Sëñ Tuubaa waaye am bis buñ ko fay taxawalal li tamit ci safar gi nga xam ne bu ñu ko daan def daan na kéemaane lool waaye léegi taw tawféex gën ci am te mu yaatu lool ba nit ñi sax ñoo ñuy gën a yàkkamti bis bi mu laajal ñu boppam ne fan ngeen nekkee ñu ne ko ñu ngi fii ci diggante Parcelles ak Cambérène leeral ko liggéey bi mu ne ma sama xol sedd na ci na ngeen di jot leen ak kent ci ñëpp te ngeen xam ne maa ngi leen di ñaanal yàlla defal leen ngeen gudd fan te sama borom defal leen xéewal yoo xam ni bis bi bu yegseetee nu ngeen ko bëggee rek ngeen defee ko noona nee na maa ngi leen di ñaanal loolu di jotli ak cantam ci mbokk taalibe yëpp moo tax nag ne kon ren bis yëpp daan na taw féexe waaye ren moom dafa gën a tee taw féexe ci ñun waaye ndax ndigal loolu ñu ci gën a jot ak ñaanuk sëriñ bi ak am gën am taw féexu leeral ko liggéey bi lépp loolu mën na ni géej na am kon loolu sant yàlla bu baax a baax a baax daal di ko ànd ak mbokki taalibe yëpp na nga xam ne kenn ku ci nekk dafa laxasaayu mën nañ ne bàyyi léppam bu dee liggéey bi kenn ku ci nekk boo leen fekkee da ngay jàpp ni ñii dañ tee gis seen njariñul àdduna lu teew luñ leen di jox bu noppee bu dee yenn yi tamit ni am seen alal bëgg ko ci def yi tamit li ñu am lépp la ñuy yëkkati di ko ci def kenn nelawul barki démb ba léegi ne mën nañ ne ñu ngi ci diggante baasi ak lii kon nag loolu nga xam ne ñu ngi koy def ci sëriñ bi tax ngeen ñaan yàlla mu nangul nu ko bu baax a baax a a baax defal ñu ci lu kawe njort ci àdduna ak alaxira waaw ndax yooyu yëpp dafa bokk ci ndami sëriñ bi ndax bi muy bi muy bi muy bi muy dem di liggéey ci ci tukki bi bis bu metti la woon diggante bu xat la woon lu tar la woon rawatina ndakaaru gii nga xam ne fii la sëriñ bi fii la sëriñ bi jaaroon ba wax ne saa su ma fàttali ko panaanum ndakaaru ma ak xat googu ak ñooñu dañu fa ne fa bu dugal du ma bëgg lu dul jël ay ngànnaay jàkkaarlu ak nasaraan bi waaye tey yàlla suñu borom fay na ko foo tourné ci dëkk bi da ngay jàpp nit ci màggalu bisu Touba lañ nekk ci màggalu Touba ñenn ñu ne di safar lan lañu def safari moy jàng alquran jàng xasida yi waxtane serigne bi ah kon lolu rafet nañ ci jot yàlla nako yàlla nangul lolu dal moy li nga xamni beggon nañ ko ci jàllale walé ci bokk talibé yi bu fekkee amu am na leneen luñ ci laajaat ñu fassiyene ko wéel bu fekkee nak mat na ci nonu kon ñu ñaanalante di jéggulu ñëpp alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh te di leen ziar di leen lokkaat weeru tudde yi nga xam ne mooy weeru safar di ñaan yéen ñu ci dëppam ngërëmal sëriñ bi di ñaan mboolem li ñu fi jàng ci xasida rek yal na ko suñu borom nangu defal ko bi jaay Seexul Xadiim liñ ko waxe woon ci tàmbali rek nga xam ne day jotaay bu am solo boo xam ni dañ ciy waajal bis boobu nga xam ni mooy bisu dix-huit safar nga xam ni sëriñ bi defal nañ ci loo xam ni mooy suñu njëriñu àdduna ak suñu njëriñu laaxira moo waral li ma ko waxoon sànq tàmbali rek ñuy waajal bis boobu fii jëloon nañ Tuuba nga xam ni war nañoo xamaat bu baax li ma waxoon sànq ne waxtaane nañ ko ànd ak dellu si yàlla suturaal yi ji ba ñu am kër ba si njot ñu ko waxoon rek ñu ñaan yàlla ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génne ak alhamdulilahi rabbil alamin lépp lu ci def rek yàlla ko suñu nangu di ko di ziar bu baax daay rek ñu ma daal suñu may di ñaan suñu borom dafa leen toog ak tey si suñu borom dafa leen lu koy si njot alxuraan jaa ngi fi xasida yaa ngi fi ñu góor da baax daal di baax ñu ko sëñ maam ci wax baax rek di ziar suñu kilifa yi nga xam ni ñoo war a baax yi nga xam ni lépp ñoom la ñu ngi leen di ziar baax ñi nga xam ñoo di jiitu yàlla sëñ bi tànn fi tëral leen ñi nga xam ne que sëñ yi dafay mbay si kii seen jëwriñ wax dëgg yàlla euh, intervenir itam ñoom bis bi jàppale ñu tey daf bu am solo yëkkati at yii bu am solo daf ci bis bi di ñu wan ne bis bi ñun ak ñoo ko bokk. ci ñuy ñaan ci dara ji sëriñ bi lépp luñ ci am yeneen boo xam ne day soox ji suñu gën a ne naroon nañ ko nga xam ñu koy ñu am ci koy seen bi di di ñaan barke xasida yi suñu borom daf leen toog ak tey ñoo xam ne jotaay bi jotaay jaamu yàlla ñu gën góorgóorluwaat ci xasida yi alxuraan yi gën a seetlu barab bi baax a baax nga xam ni euh, dañ ci defal ngir ndax ngërëm sëriñ bi nga xam ne sëriñ bi waxtu bi nga xam ne ci tukkee bu métti yi nga xam ni bu xalaatee bu ñu mën a rek day bëgg jël gànnaar di fekk soldat si nga ni tukki bi bu gën a métti ñu fa ne Ndakaaroo ko amoon euh, di wane ne Sëriñ Tuubaa ñaari guddi yooyu kon te te Ndakaaru méttoon lool murid bi ko jëm fay kon ñu ngi ñaan euh, lépp lu ñu def ak yéen dëppam dama sëriñ bi di leen siyaar baax di ko tab yi xam naa dañuy def mel ni sëriñ saa yu sekk moom itam jàjjankat ma nga xam ne jotaay bi عند الذي لم يدرك كونك بالمسلمين يوم خير مسلمين سرقة من سرقي يقودني لمرقي ما كفل خلقي فسي بمثل مرقي كل نقي مدرقي المسجد الرجيم عني سلالة الكرام ما مناوك حرام واني ذات الاحترام بلا انتهاء لسرقي شكر ربنا الكريم شانك سورا لا يريم ابنك نال ما يروم الذي لم يدرك رمت بزام حبك ردا يديم غربك من رب زاد حبك موت الهدى والنسك بلا إذ كن فيكون طلبت منه أن يكون لكن إذا مثالكم ومن زكي يا أم روي مالكي يا أم جال الهالكي ابن كلاب هالكي إن العليم مسكي بارك فيك ذو الجلال وفي ابنك النافي دلال بما يخلق سجين Hallelujah. الأكواب ديان أهل الفزاعة ترن سلامة وليس بالأكواب

zani zani zani ñu بن عبد الله تنعيم زائر لا يعلم الأبرز وأقدار بالمسير للخلق والإيمان والجنوب روى قول الأزياء القوام والنبوة والهدى يجري بما يعرجون فهو عيسى لا زمن يهمل العار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلسال مكة كلكم دولا يرجعنا لقد Seexuna Sëriñ Saaliw kan ko doy na du doy na la nga doy na ñaari doy na ana sama Sëriñ Saaliw xel ko jox jurul jox la nga doy sa la rafetal ak sa bëgg lu baax tax na mboole loo tàbbi ñu di ko woote ci réew mi lu ne dem ca looloo moo ma gën a dem ci bés bu mu mën a doon te loolu moom loolu ma ko wax mooy dëgg ci man te mooy nag seen saali bi barki Xaadimu Rasuul dañoo dañoo ànd ak moom ngir jëmmi Sëñ Tuubaa li ko li ko du lenn lu may niveau bi mu teg Sëñ Tuubaa ak li ko sëriñ Tuubaa jaral ak ki sëñ bi doon ci moom yaari murit nag daa xew feeg yaa ngi gam-gam ne sëñ bi baax moo gi sëñ bi doon baax moo ñëw gi sëñ bi ne doo moom barki Cheikh Ahmadou Bamba feeg yaa ngi nattam leen sëñ bi mën na lii mënu ko ak di laam kenn du sëñ Tuubaa kenn du moom maam li maamu laay mu baax ñii dëkk fii borom Cambérène di ku ñàkk ci ñaan lool kenn ku ne xam ne ko yàlla may fii ci Tidjéem Tidjéem gii la fekk Sëñ Tuubaa andi bànqaasu banaana jox ko Sëñ Tuubaa fii ci Tidjéem na ko dañoo bëggoon nga toog ci réew ngir ni nga ak ñi ngay jëflanteel sëriñ bi ne ko li maamu mu ne ko labbeeg mu ne ko li ngeen am du am mbukk ndax damaa dem ba ñëw suñ biir seen di jàmm loolu wàññiwul dara de ñu ngi ñaan ci dara jëye sëñ Tuubaa yal na ko yàlla fayal mu ngi nuyu baax sëñ Abdou Ndaam sëñ Fallu Mbàkke moom sëñ Abdou Ndaam mu baax mii nga xam boo xoolee nii mu mel wax naa ko Aliou Badar nee naa ko kii de barke Cheikh Ahmadou Bamba Amadou Saliou nit ku baax bu ñëwee fi yow da ngaa war a xam ki ñëw fi yow kum doon kii boo ko xoolee xam ne. ni koy nii te di ko ziare di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko lool te wéral ak yaramam yéene ci sëriñ bi yàlla ko yàlla mottali barke Seexul Xadiim yaakaar naa ni ëpp ci mbooloo mi rawatina ñi nga xam ne tënku nañ ci biir fédération Majmahun Nurayni ñëpp miin nañu miin nañu ko miin nañ jëmmam ni ko sëñ Mor Gueye yi waxee léegi rek moom noonu lañ yàgg xam ci moom wenn melokaan woowu rek mooy li ñu xam ci moom muy bëgg doon at yu yàgg ñaan yàlla mu gën a yàgg sunu diggante ak Serigne Saliou lu nu ci am ak waa daara ji yàlla ni nga ko jaaree ci jëmmam waaye nii ko sëñ Mor waxee léegi ni ma seen juree yi ko gis moom dana xam ne kii moom ab murid saalix la ma ne ko loolu di na ndax yooyu nga ci nett ni ah, jëflante naa si saaliwu ci yoo xam ne xam ne ni ku yëgul foofa doo ci mën a àgg foofa ak nañu lu bari ci bi ba nu yegg sëriñ bi ni mboolem ña fa nekkoon ñëpp may leen ma ñëpp jóg ba ñu des ñun ak moom képp sëriñ bi doo ko tàmbali ak moom li li ak moom ak yu baree baree baree kon nag loolu dama koy firndeel rek dëggalal ko moom li wax ci moom mii mu teg ci aw yoon yi tamit yàgg noo wax nii yoon wi ñu ànd day dañuy liggéey seen tubaab jamono nag li fiy fëkkee léegi dafa bari ak liy dajale mbooloo woo leen ci sëriñ bi ba nu wuy suñu jëmaleen feneen waaye man de saa bu ngeen ma gisee ci lu dul noonu yéen xool leen yoon sëriñ bi digle ngeen jaaxle te ngeen xam ne li sëriñ bi digle rek mooy li am njëriñ. kon naka jekk noonu la ànd ak mbooloo mii ba yàlla dugal tey mu teew fi teewaay bii nga xam ni teewaay yëpp neex nañu teewaay yëpp bég nañ ci sunu xol sedd na waaye ba suñu boppam bii day amul bu ko féete kaw ci ñun man nañ ni moo féete kaw ci mbooleem teewaay yëpp sax waaw ndax li ko waral li sabab bi wax naa ko léegi daara ji bi ñuy dem ci moom di ko wax nii ñun day mbooloo bi nga xam ne dañoo féete woon diggante Parcelles ak Cambérène dañoo mujj dajale suñu bopp mu nekk benn daayira boo xam ne fédération la weer bu jot ñu di ko def ñu tuddee ko daayira jokkoo mu xamal ñu ne da ngeen di ñëw kon ñu àndandoo dem ba Serigne Saliou gannaaw mooy ñu yëgal ko ko mu ñaan ci bi ñuy dem moom mii la àndal ba ci Serigne Saliou lañ ko doon jot li muy kàddu jóge ci daara ji moom mii moo ko doon wax Serigne Saliou Serigne bi sant ci lool daan ni kon nañ ko tuddee. mbooloo sëñ bi tuddee daara Majmahun Nurayni fi fawaa'idi daarayni daal di wax ni mbooloo moomu de na ngeen seere ni bokk naa te naa ngi seen biir loolu yaakaar naa émission bi ñu doon def fii ci suba te waa social shopping doon ko def doon ko amal ci taarixu daara ji bi ñu ñëwee maa ngi ciy lool loolu sëñ Fallou bi ma ci doon wax moo nekk nii toog moom lañu àndaloon ci Serigne Saliou ñu dajale àdde yi tamit at mu jot ñu dem di siyaare saa bu ñu ko defee tamit benn kuréel lay doon jenn adde bu ñëwee teg ko ci loxoom mu làmb ko seen yëkkati adde boppam daal ni may ma dugal ci sama adde yóbbaale ko buñ demee moo ko yëkkati toog ci loxoom Serigne Saliou noonu lañ koy doxale ak moom ba ci bi ñu ziar si mën taxaa bëri ki dem kon yàlla a euh, te lépp luñ ci amee rek kon ñoo koy delluwaat di ko nuyoo ak mbokki taalibe bi di ko wax ni waxtu bu nekk xelam ak xolam ak xalaatam ak yëpp mi ngi fii ak mu ne bu fi ñëwul dana yónnee boole ko ak ay ñaanam ba bés yi fu ñu toll xam nañ ni moom bokk nañ biir loolu kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di bëgg ci teewaay bi wér a wér a wér ak it taawam bi mu àndal muy sëriñ Modou Mbacke moom it mbooloo mi miin nañ ko ndax ñu nag moom benn génération lañu waaye tamit ku am yitte la ku am ak farlu lay tamit. waaye di ko di ko sant bu baax di ko ñaanal ndax am na fu ko sëriñ bi yabaloon bu yàggut man ak moom ñu ànd fa keroog bañ demee am ñeneen ñoo xam ne sax yeneen yi wax lañ doon wax yoo xam ne ngir lu xëy na lu suufeel ki li ki lu yónni xëy na yeneen waaye li yàlla def ba mu noppee man maa na ko jël kàddu par du ko téléphone bi sonné fi ma koy coupé di ko wax naan ko woowaat ma koo ko daaneel kàddu sëñ bi jël kàddu mënatuma koo nopp mu wax ko wax dama ne ko yow de sëñ bi la yebal la tax mu di la yebal xam na ko ndax man bu doon maa jël kàddu moom la may njëkk a def moom yaakaar naa wala fan dana ci bokk tam boobaa jotaay mën naa jaxasoo waaye mu tontu ci xam-xam tontu ci ay teggin yu mat sëkk yoo xam ni ah ña fa newoon te leneen yëkkatiwul leen yaakaar naa ñëpp mujj leen ci yàlla xam ne kii moom ah li wax naa ndaw du nekk dara ji ku ko yónni lay dikkee loolu la ko yàlla defal keroog kon loolu ñu ngi koy seeree sëriñ bi di ko sant bu baax a baax gannaaw loolu di nuyu suñu mag yi taalibe yi nga xam ni ñoo ñoom bay bay sekk ñi nga xam ñoo daayira Touba Cambérène loolu at mu nekk ñu wax fii daayira bi fu mu yegg ñun lu nu yaatal fii ci gox yi maanaam ñoom ñoo nu bayal ruujal ñu ba yaatal ñu ba mu nooy nekk ci ñoom ba defar ñu li mu ci war a defal lépp ñu doon ay mag yoo xam ne tekkiwul seen laxsaay benn yoon nag dimanche bu jot boo ñëwee da nga fekk ñu lal dajale seen i at yi bind wut seen kees def ko ci bu noppee yëngal seeni xasida tàggoo di kenn bu ne ñu dimanche ñu dajawaat ko dimanche yëpp ñu ngi koy def waaye boobu moo ci mut ba dimanche bii ñu génn moo ci mut tey suba am nañ yéene def ko kon ñoom it ñu ngi leen di ñaanal bu baax yàlla yàggal leen di leen di ko leen kalaame ak sëriñ bi tamit ndax ñoom ñooy suñu yi waaye liggéey bi ñoom ñëw toog gi sax ba waxtu bi sax mën na li wàcc na leen ci waaye dañ ko boole yëkkat adde yu bari jox ñu di yónnee ay daw xool fi ñu toll ci liggéey bi dinu ci soññi dinu li dinu wax waxtu wu nekk loo xam ni ku doon yox yoxe sax benn fekk ni wax sa laxasaay kon sëriñ bi loolu ñu ngi la koy ñu ngi la koy dégg di la ko waxaat yow mi nga xam ne yaay jëwriñu booloo mi nga doon leen a ñu yàgg ci te wér li ñu am ci yéene yeggale ko itamit ci tool bi yàlla kàttanal leen ba ñu ba ñu yeggale ko kon xam naa bàyyi may lañ jox gi su noppee tamit jox monsieur le maire su noppee ñu jox sëriñ bi mu yeewi leen ndax bëggu ñëw téye sëriñ bi ci jotaay bu yàgg ne li mu toog rek yàgg na ba noppi waaw kon loolu yi tamit ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax monsieur le maire moom dañu ñëwoon ngir mujjee ci moom ndax yàgg naa ko fii ku fi ñëw doon kilifa ci ñun boole nañ ko ak moom nett li ko jaar-jaar yi mu jaar ak ñun mu am ak ñun ak li muy fii tey nag moom kilifa gu mag bi nga fi dajal boo xam ne kii moom lañu sëriñ Saliou bu boolee loolu ñu nekk ak moom monsieur le maire mi sëñ bi bi ñëwee doon ko fi def bi ñu koy tàmbali ñu ngi ko doon defee ci ruq bi nekk fii ci ginnaaw ba xel yi dajee ñu ne école bi lañ ko war a defee wala nangam bañ ci xalaatee ci loolu dañ ne ah ndax loolu dana mën a nekk ba ñu ñëwee di def délégation ñu wax ko dañ ne ñu loolu amul benn problème fii ak Touba moo yem ci yéen lu ngeen bëgg Touba mën ko faa def bu ngeen ko bëggee fii fii ak maa ngi nekk bu ngeen ko bëggee dana mën a bi ñu ñëwee bu yaatalal ñu ko wax ak directeur école yi fi nekk yépp ñu commencé di fi def seen bi ji ba suñu ñoon yàlla tey jii at mu ne bu ñu koy defee mu ñëw boole matériel bi nga xam ne nekk na ci maire bi doon soxla ko day wax ne ñëw leen nga jël ba nu noppee mu yëkkati addiyaam bi am solo dugal ko ci biir liggéey bi daal ne loolu maa ko tàggee ci biir liggéey bi ngir ngeen ngeen di ma ci ñaanal dina ko sale baax loolu nag su koy jëflante ñoom ci jëflante a rafet woowu ñoom accès ci kilifa yi fi nekk ci dëkk bi yëpp te mu jaare ci moom loolu bu sëriñ bi teewee war nañ ko ko wax war ko mu yokk yokk ba yegg ci dégg grade ministre ba yegg sax ci ñi bokk ci réew mi kon sëriñ bi mu le rek noonu àndinu rafet boobu moom la ànd ak ñun te mënaluñ ko dara loolu di ko sant rek ndax ñun euh, wax naa ko ñu wéet wax naa ko ci wéet ñun bëggunu dara xoolunu dara sëñ Tuubaa rek bëgg ku ñu jaral yi tamit wax la benn baatal doom ak tànk boo mën a yor ngir séentu ci yow dara amul ci àdduna loolu yàlla dimbalee na ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك waaw te loolu rek mooy li am solo kon ñoo ngi sant bu baax xam naa ngir bañ a guddal ak bañ a téye bi lu yàgg ni ñu ko waxe woon Baye Mbaye xam naa dañ koy jox kàddu gi bu ko defee. alhamdulilah man sàrdi rajim bismillahi rahmani rahim bismillahi lazi laa yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa lam yakun lahu sami'un alim rabbi anzilni munzalan mubarakan Allahumma ya Rahim ya Ahmad al-Mu'min bi sa'atin balad al-umra'i wa ba sawan la ni din lam ni inama sabbilu wa la tujadilu Allah min kulli karim akram wa la man khadu takramu asbilu kullu kad iman wa la sinzan yawma waji bi subri bila kubrani topp isamman ndimbal ak yërmande sayid ak baatin mucc ak mucc ak barke ak fekk ak yàlla ko yàlla def yàlla ci lépp li lool waaw euh, sëñ Bala ni ko waxee rek ne la wax ji wax nga ko ba mu jeex wax nga wax ji ba mu jeex wax boo ko déggee danga koy jarabu seet ba xam kii wax li mu wax lan la bu ko defee rek daal ko dootul jaral guddal euh, nun sant mënut a sant xanaa li ma ko mën a weesu de mooy boo bi ñu bi ñu toogee fii daaw sant kon ñëw na ba ren ñu toogaat kon dañuy sant waaw loolu mooy yokk gi ak mu ne rek mën cee yeggee ñu sant euh, nuyoo bi nag ñu ngi ci jiital sëñ Ablaye Thiaw Laye xalifa sénéral di Layeen sunu bàyyi sunu sëriñ ki booy diini muy benn ki nga xay këru diine goo dem am na fa turandoo mbaa moom ci boppam tural na këru diine turandoo ba tey mi ngi fii yàlla weeral na ko fi yàlla ko fi yàgg yàlla weer jëmm la joo xam ne ji ba nu demee ci moom di ko siyaare daayira bi libaas jiw der ba wutal nu ojaas lu dem ci moom xam nga murit moom daa muntu nuyoo loxoy neen ba na dajalee sunu nuyoo ba mu yegg ñu fas ko mu di ëmb nuyoo bi bokkut ak leetar bi nga xay mooy jóge ci daayira bi nekk sama nekk sama euh, poste bii ba nu toogee ba nu toogee ba nuyoo nag bi dañuy yëkkati jox ko ni lii am nuyoo la mu ne ah lii nuyoo la loolu ko waaw mu téye man laa am sax parce que génn ambalong bi jox ni ko lii mooy ambalongu siyaar mu ne ah lii ambalongu siyaar bi jërë ngeen jëf waaye bis ni ki tey yéen ñii di waa kër Serigne Touba sama biir yàpp yaram wi yéen a ngi ci biir biir yàpp yaram wi la wax mi ngi nii ci wax di ma dégg wala ku ko feral ko dee sawara nga jëm wala kenn du ko feral kenn du ko waxal lu ngoo dama di ñii yéen a ngi sama biir yàpp yaram wi biir yàpp yaram loolu la ñu wax ñu di ko doole sant na fa sant tàmbalee. ba àjjana rek yal ko yàlla yàgga weeral weer ci kii bi diine yëpp kenn ku li nga jiite yàlla sa borom bi muy lislaam te nga nekk fa yow njabootu ke la fa doone yàlla yàlla yàggal ci bopp njaboot yooyu ah, sëñ Fallou mii nag li bare wax wax na dëgg ndax nit ki mu jaar rek la xam waaye fi mu jaarul mënu ko waaye bi muy defee jullikaay bi ci unité sept ci unité sept li nga wax ci sëriñ bi man damaa yokk waaye wàññiwu damaa yokk ci moom may wàññiwu ndax sëriñ baax na ko joxoon mooy sëriñ Ibrahima yéen itam sëñ Saal ñu jéem ko boole ko boole ko yéen bu ngeen léegi teg ci loxo ngeen am yi jébbal sëñ Saal kon لرشد من نوري كل نور ساعة والبسانة نور جنو نور شمس والقمر leer gu ci leer dugg ci leer génnaat ci leer dugg ci leer génnaat ci leer dugg ci leer leer rek lay a doon kon sëñ Ba ñoo ngi sant ñëpp kontaan nañu lool ndax nit ki li nga xam ne da koo bëgg te mënu ci moom. am na tàmbali waaye amul fu mu yem ci yéen suñuy doom jafandu lii nga wax léegi ci tënk eh, di sant monsieur le maire moom it noonu ngeen ko waxee noonu lañ ma waaye dama leen wax ñëw na ci man ñëw nañ ci man nett li ma ko ñu ngi la nii bis bii bu leen ko génnee ci kàmm di ko yóbbu passé as bi yemale leen fii ci biir kàmm ngeen ne fenn maa noonu lañ ma ko nett le waaw kon nag eh, eh, taxawaay bi ak jotaay bi yal na yàgg li nga xam ne koy yëg ci yaram yi ak ak ci ak néew ak wér yëg ci yaram yi ak wér na ko yàlla jëme kanam li ñuy yëg ci yaram yi ak wér gi di ko yëg ci yaram yi yal na ko yàlla jëme suuf wasalaam suñu bàyyi bisimilah ginnaaw ñu sant yàlla jëli si ginnaaw imaam alayhi salaam ñu ngi leen nuyu si nekk si turam ak santam

ak kàddu yu rafet yu sell yi ànd ak ñoom maam la ñoom képp ku fi teew góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm te di leen dalal jàmm fii si Cambérène te surtout xalifa bi mi nga xam ne tey jii sëñ Fall Mbàkke bii mën na ko fi teewal ndax dëkku maaram la te dëkku ay waajuram la ndax diine ji benn la xibla bi benn la te mu ngi leen nuyu di leen coono ak njaboot gi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw parce que borom dëkk bi chef de yi ñoom ñëpp vraiment ñu teewal leen fi te conseil municipal bi tamit ñëpp daal Cambérène yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw dalal fii si Cambérène

bi ñu ko ko waxee weeru koor la tombeel weeru koor yëpp xam nañu ne mu xatee waaye mën naa la waatal ni bis boobu kenn jiitu ko si kër gi fii si Moodu Maamu Mbàkke baax ku yiw ku sell te loolu nag à travers moom nag si moom pour pour ak lu bëri ñoom ñëpp ni ko sëñ bi waxee léegi ku la xool xam ni macha allah. yàlla yàlla yàggal taxawaay bi sàmm leen bu baax a baax e lii nag diñ ko waxee rek Cambérène tey bu dee dund mën nañu wax ni lii mooy dund lii mooy ñamam mooy diine tàgg fi yaa rasulullah tudd fi laa ilaha illallah wax fi ay xasab yi loolu buñ ko defee Cambérène ku ko rek wàccoo ngaa borom dëkk bi ndax loolu la ko sant te loolu rek dañuy wax ne Cambérène

Social Shopping Production. Pour tous vos programmes, clips vidéo, tournage série, couverture médiatique, montage ou étalonnage, veuillez nous contacter sur la 77 417 77 40. Social Shopping Production.